aspect communication nag euh, Moudou Awa Moudou président moo ko teg boppam. ci naka. Ah! dem na secrétariat national APR. ñu ne ko président tànnal nu candidat. Mhm. mu dajee la conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar. ñu ne ko président tànnal nu candidat. waaye lu tax mu naan ku bëgg a nekk candidat. Mhm. yow bu ñu la tànnaloo candidat tànnal candidat waaye bu wuti candidat. foofu la problème bi yëpp benn. ñi nga xam ne dañoo bokk alliance pour la république te fekkee ñoo ba ba ko parti bi ne tànnal nu mhm. jox ko carte blanche waroon nañoo jomba yëkkati seen baram dama bëgg dama bëgg ñu tànn mhm, mhm. loolu moom wala foofu lañ ko waroon a waxee ne ko amoo carte blanche ñooñu ñooñu indiscipline bi ñu ma dàqe woon ci APR ils ont fait acte d'indiscipline d'ailleurs dañu leen war a dàq kon ku fay des ah xaw ma mais dañ maa dàqe parce que nee nañ damaa indiscipliné moo tax ñu daax ma affaire mais li ñu su doon nag de discipline nga bokk ci instance. instance bi jox président bi ne ko jox nañ la carte blanche tànnal nu même moom bu leen nee kan moo bëgg a nekk candidat war ngaa jomba yëkk sa baaraam ne ci laa bokk. moom nag waru ko woon def ay ñoom ñu yëkk seen tànk ne ku mel ne Amadou Ba boobu la nekk moom na euh, waxul ne candidat la. bàyyi na boppam réew mi donc dafa mel dafa gën a yeewu gars yi bokk ah, xawma lu mu def dégg naa li mu wax moom mën naa ko dama ko dama ko dama ci d'accord moom mooy li dafa na amul daan nekk lu ko sëñ Muntaxa wax mhm. sëñ Muntaxa mhm. a dégg waaye ñun xam nañ mhm. ci kilifaam yi ko yi nekkoon xalif général ci baat yooyu ci baat yooyu ci ñoom la ko daan jëmale xama leen di ñëw ne ko waa ndax wax sëñ bi nangam sëñ Muntaxa ne leen kilifa da nga koy bàyyi ak boppam bàyyi ko sa bopp seetaan ko xool lu mu doxal lu moom de noonu la sëñ Muntaxa mii noonu la defoon ak sëñ Moussa Bassirou noonu la defoon ak magam yii nekkoon yor yoonu murid ba niñ fi jógee loolu mooy mooy réegalu sëñ Muntaxa bàyyee kilifa ak boppam bàyyi ko sa bopp. ma jàpp nag bu fekkente ne waa alliance pour la république ak waa Benno nee nañ Macky tànnal nu candidat dañoo war a bàyyi Macky Sall ak boppam bàyyi seen bopp. malheureusement ils l'ont pas ba jamono ji président am na ambara am na jafe-jafe. Ah, euh, nañ refilé la patate chaude à Moustapha Niass bu paree bëgg leen signé loo benn charte boo xam ne. ku ñu tànn ñeen dañ ciy tënku fi ñu foofu ça veut dire que c'est Yaakaar ba ñuy man moom moo waroon a tànn ci biir tànn bi nag mën naa waxtaan moo di Awa hmm. Ndiaye noo gisee waa kii euh, Moustapha Diakhaté wala keneen ak keneen mën naa mën naa waxtaan ak nit waaye tànn bi moom wóoroon am benn candidat kooku moom moo ko teg boppam. Hmm. ah moom moo jafee lu yomb parce que nag gars yi yombaloon ko mbir mi. mais fi uh-huh. moo yor APR quand même. c'est la première fois ñu naa ko jox carte blanche mu di ko mu di ko séddoo. Mm-hmm. lu tax mu di ko séddoo <laughs> carte blanche yi carte blanche ci affaire élection locale daaw da daaw laaj candidat da daan def rek. waaw tànn ñi mu jàpp ne ñi baax nañ ma jàpp ne xam na waa këram xam koo xam ne war na caa mën a génne ku war a mën ne candidat mais en réalité le président li mu war a proposer du candidat. lan la un dispositif. autour du candidat. bien sûr cest à que ki muy ki muy tànn président waru koo jox fauteuil da ko war a jox bàgg ndax dégg nga wax bi. comprendre ma. ki muy tànn da ko war a jox fauteuil da ko war a jox banc waaye waru ko jox fauteuil. loolu mooy lan. mooy lan ak bokk. Hmm. bennoo ak bokk. loolu la war a tànn loo xam ne day day mandargaal bennoo bi di benn ak mandargaal bokk gi. mais mais mais moo xam ne ñamay ñamay danañ xam ne seet loolu doo ko wax ci kii mais ànd àndandoo dama doo conquérir le pouvoir ah. ñëpp ñëpp conquérir ensemble le pouvoir voilà c'est ça et euh, gouverner ensemble le pouvoir uh-huh. moom secret bi mu jaar ak Benno Bokk Yaakaar 2012 ba léegi ñun bu déw fan lenn ko waral. Mhm. da ko au mu Benno Macky Sall def ko bang da ko def fa tey c'est-à-dire ñi nga xam ne ñoom la àndal Benno. Mhm. kenn ku ne ci xam na ne ànd ak ànd ci Benno bi la nga am moo ëpp boo demaloon sa bopp. waaw autrement dit réglu Cheikh Anta Diop bi moom la Macky Sall appelé Benno. mooy lan bokk ci lu rëy. moo mhm. gën yor lu tuut. Ah,